ñew yang ngi xalaat élection bi di ñew militant yi wër la ku nekk naan la mana mana jox ma ñoo fi newon di def li ñoo fi dajoon li jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti élection waaye foofu la yem te boo ko askan yu jéppi la parce que askanu Sénégal li mu sanctionné ñi fi nekk lii rek la de du leneen ñaareel bi nag mooy suñu option ñun ñun xoolu la prochaine élection ñi ngi sénégalais yi koo laaj lan mooy PSE xamu ko ñi que xam ngeen lan mooy PSE lan volet agriculture PSE lan volet industrie PSE lan volet financement PSE xamu ko nun du ñu doxalee noonu gis nga changement boo ko bëggee def ñi la il faut ñu xam foo jëm ku xamul foo jëm mënu laa gunge yi ñuy def ni yëpp di lappi lappi waaw dund bi seer na ñii defuñu li ñaari weer dund bi ñoom ñoo ko seeral de ñoo seeral dund bi sàcc xaalisu réew mi jaxase mbir yëpp defuñu sax ñeeri ñaari weer xam nga ñoom suñu muusoon sax dañuy dem làqutu ba ci kanam ndax boo sàccee ñëpp daw ne wupp sàccee nga dugg ci benn ruq gaa romb gisuñu la waroo gaaw a génn de danga war a toog foofu ba affaire yi dal ba guddi ba mu lëndëm nga yot ndànk waaye yow gars yi demaguñu sax nga génn naan woy waaye dina dina saf si ñoom dina saf sap sap sap sap sap te ñooma ñoom gis nga ñoom ñoom li ñu yàq ci 12 ans li ñu yàq ci 12 ans moom lañu ñu bëgg a wëlbatiku gëmloo yi ñun ci ñaari weer lañ ko waroon defar est-ce que loolu xel nangu na ko 12 ans nga yàq réew mi yaxet ne ñun ci ñaari at nañu régler lépp donte nag dinañu régler de bu soobee yàlla fii la fan yu néew probablement semaine bii sax. dinañu wax sénégalais yi mesures yi ñu jël pour wàññi dund gi bu soobee yàlla dinañu defar de waaye dama bëgg a partager yéen ngeen xam fu ñu toll parce que yéen yéenay projet bi de du ñun su ma waxee vingt cinq man dans vingt cinq ans attanu réew dans vingt cinq yen ñi am 20 ans 22 ans 25 ans yen yéen wara nek a nekk Bassirou Diomaye Faye yéen a war Ousmane Sonko du man kon projet bi yéen ko wara porter sénégalais bu ne da cee war jël walam fan lañ ci tollu bañ ñi fal dañoo am un projet projet bi lan la wax un Sénégal prospère souverain juste def naa loolu la ñuy wax ci projet bi ci loolu la ñuy liggéey projet la ñu ñëwé projet projet moy li ñu présenté won Sénégalais yi ne programme président Bassirou Diomaye 54 des Sénégalais ñu au premier tour en tant qu'opposition lu 54 au premier tour pour l'opposition dëgg dëgg dëgg nattee ko 78 pour cent ou 80 pour cent dëgg dëgg dëgg loolu la ñu jox boo ci génnee càcc gi génn ci mbuxum gi génn ci yeneen ak yeneen kon étape boobu lañu ñu tolloon nee naa leen ñun dañoo xam état xam fi ñu jëm biñ ñu ko joxee dañoo commencé liggéey bi liggéey bi ñaari fànn la bi ci njëkk mooy am le courant Dang fe fek fekk mbir il faut mu continuer dox li ñuy wax le principe de la continuité de l'État Moi, ndox war na am courant war na am nit ñi war nañoo lek, nit ni war nañoo nan, nit ni war nañoo faju nit ni war nañoo nit ni war loolu dañ koy continuer Diko améliorer loolu mooy le courant Waye à côté ñun dañ fee le lu tudd plan Sénégal émergent yàgg nañu wax ni baaxut te su senegal Sénégal du tollu fi mu toll ni ñu ne kon li nga xamne moy le nouveau référentiel des politiques publiques moy li nga xamne ne lañuy tok ba nga xamne ne lay doxal senegal ci juróomi at yi di ñew foofu lañ koy tibé ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñom bañ koy def dem jël ben cabinet bu tuddu Mackenzie fay ko 3 milliards ñaari at ñu ñu fal la 2012 ba 2014 ngay avons a PS e. ñun ñu ñu fal 2014 2024 septembre 2024 ñu gënné leen suñu document septembre 2024 ñu gënné leen ko inshallah te demuñu ko demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de parce que saagaa leen desoon ak xaste te dootuñu ko def bind di sosala fi desoon te duñu ko def nañu dem sàkku xam-xam duy seen xel yi ñëw taxaw ak ñun ñu discuter ci suñu programme loolu rek a fi des ñaarel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050 ndax kuy defar réew da ngay gis fu sori àdduna bi taxawatul ci benn bés les choses vont vite donc ñi ngi togg document bi ñuy wax Sénégal vision 2050 nga xam ne day leer nañ ñu xam chaque jour chaque semaine chaque mois fañ jëm président Bassirou Diomaye fay jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement maa ngi jéggalu ñu mu neexul ma coordonné ko nag daal di xëcc nopp ministre yi noonu lay doxee plan d'action gouvernement bi def les plans d'action yi nga xam ne ministère bu ne ci la war a doxee daa di togg nag li ñuy wax les politiques sectorielles filières mooy filières yi Sénégal amul benn